liggéeyam gis nañ sortie bi nga xam ni waa a def nañ ko ci dina xarlu yenn arrestation yi nga xam ne tàmbali dañ ko di gis ci réewum Sénégal ñeel délit d'opinion noonee la ko waxee ba noppi itam di artu président Bassirou Diomaye Faye ak PM Ousmane Sonko ngir ñu bàyyi xel ne li fi xewoon démb ak bërki démb ñeel Macky ak i nitam duñu ko nangul kenn ñoom nee nañ itam d'accord nañu ne réew mi dëgër na lool te régime bi fi jóge moo ko waral waaye lu ñeel ñoom seen sortie boobule maam biram wàcc nekk chroniqueur bu ñu ràññee lool ci réewum Sénégal amoon taxawaay itam bu mucc ayib jamono bi nga xamee ne Macky Sall mi ngi toroxal askanu Sénégal àndoon sax ak yeneen i chroniqueur formé woon front pour la défense de la démocratie boole leen bu baax a baax Macky Sall li mu naroon li mu doon jëf moom ak ay nitam maam biram wàcc moomulee dal na ci kaw waa Yanamar ci benn tweet boo xam ne def na ko ci X mu ne sàppale Yanamar poussé à promouvoir l'anarchie le désordre et l'indiscipline Biramov comme ni ko patriote di tooñee nee na tudd yaana maar warul mën a tax ngay may doole lu dëppoowul ak yoon lu àndul ak yar ak teggin luy indi pëccaxoo ci am réewa maanaam ci gàttal sortie bi nga xam ne yaana maar def na ko di wax ne jàpp yi dafa bëri ñu sukkandikoo ci kàddu yi mam Biram Wacc yi lee mel na ni ñooma dañoo ànd ci kàddu yi nga xam ne ñooñee yëkkati nañu ko wala boog ko ba waral waa cybersécurité dali leen àdduna ci sànni na leen ay xeer ñoom waa cybersécurité ndax mi ngi wax naan la cybersécurité doit aussi faire preuve de plus de professionnalisme noonu la ko maam Birame Mbodj waxee maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoo convoqué woon ñii ñu mettroon en garde à vue am ay laaj yu ñu leen doon sampal ñeel seen kàddu ñu yëkkati Birame mu ne nañ gën a professionnel ci li ñuy loolu mën nañ koo dégg mën nañ leen koo itam nangu la li ko waral mooy jàpp-jàppe yi bu dee dafa bëri te amul ci benn base bu ñu ko teg mën naa dem a dem ba soof sénégalais yi alors que askan wi dafa am lu ñuy rêvé lu ñuy xaar te loolu la reddition des comptes ñu wax ñu suñu ay sàcc ku ci nekk lan mooy sa responsabilité ci diggante ba événement yi fi xewoon ndaw ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu ñu fi tëj kaso te teguñu ko fenn am ci ñoo xam ne ci yooyu la manifestation daan am jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ñu dul fàtte ba mukk am ci sax ñoo xam ne jéemoon nañ di faat comme ku ci mel ni dàmbooja ak yeneen ak yeneen yu xew ci biir réew mi te mu nekkoon lu ñaaw lool loo xam ni reddition des comptes faaw rek mu daal ak ñooma fekk leen fi ñu toog jël leen a yóbbu leen kaso bu ko jaree sax ci yoon bi ñu ne ñun jàpp nañu ne tekki wuñ dara ci réew mi di leen jàpp sax nduru na lu leen di may bës comme ni ko waxee démb ci suñ benn jàngat Bougane bu Macky Sall ngir ñu tëj ko kaso jotuñu ko door mandat de dépôt waaye garde à vue bii mu ci jot a am dina ko exploité ba moytuwul juróomi at yi yëpp moom lay waxtaanee pour le moment nag pour askan wi li nga xam ne moo ëpp solo mooy le novembre bii di ñëw ñu jublu ci ngir may Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président majorité à l'Assemblée nationale loolee daf ñuy may ngir ñu mën a soppi lépp luy ay loi ci réew mi comme ni ko Khadim Bamba waxee bu ko defee yenn doxalin dina mën a soppeekoo te itam dinañ mën a tëggaat suñu justice ci anam mucc ayib taxawal lépp luy kuréel yu ñu mën a may ñu def reddition des comptes bu jaar yoon buy respecté itam ak ak yelleefu kenn ku ci nekk ñu tëral itam ay base yu a a ñuy mën a liñ ko mën a nemmeeku kumba am ak kumba amul nday jugee ci réew mi ñu instauré méritocratie kenn ku ci nekk loo mérité ñu teg ko ci sa loxo boole kook liggéey le travail dans l'éthique bu ko defee ñu mën a soppi suñu Sénégal soxla nañu ko il est temps ñu def focus sur les priorités pour le moment bi ñu am mooy le 17 novembre ñu jox président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko majorité écrasante à l'Assemblée nationale ngir Sénégal bi ñuy rêvé ñu mën koo jëmmal AGT News